su maam mu góor jàllee nga jàll si ci baay bu ndaw da ngay njëkkee baay bu ndaw bi nga xam ne mook baay bu jigéen ji ñoo bokk ndey ak baay teg ci baay bu ndaw bi nga xam ne mook baay bu jigéen ji ñi maye ñoo bokk baay dong suñ jàllee nga teg ci seen doom te seen doom itam tegaloo noona su fekkee nag weesu nga baay yu ndaw yi ak seeni doom nag say boo seet ba xam bu fekkee ne jamonoy jaam amee la te fekk jigéen ji am na ku ko goreeloon kon ka ko goreeloon mooy sës su fekkee amul ko goreeloon nag say boo teg ci kayar jigéen ji ka ko yar na am na ñu ne day aaju ba mu yar ko diir bu yàggee ni fukki at am na ñu ne ñeenti at am na ñu ne déedéet bu ko yoree diir boo xam ne ñemanteeg toppatoo xaj na ci rek dal nay baax su fekkee amul ku ko yaroon nag ñu teg ca àttekatu jullit ba su àttekat jullit amul nag mbooloom jullit ñi ñooy tase seet ka nga xam ne doyloo nañ ko ne ko mayal jigéen ji kooko daal di koy maye kon kilifa yi noonu lañ tegaloo wa in zawajaha ndéem séyiloo na ko mooy ndéem maye na ko albaxidu aji sori ja mada kon wéy daalika loole bu fekkee ne kilifa gu jege dafay nekk ñu dem ci kilifa gu sori mu maye ko itam du ko tee baax waaw mel ne mbokk mu mbokkal ndey ak baay nekk fi ñu dem ci baay bu ndaw baay bu ndaw maye ko loolu yàgg naa am fii ci aade wala fii ndax fonk yi fonk kilifa loolu du wàññi dara walil wasi yi ñel na ka ñu dénk an yu sa wija mu takkal soxna ak tif la xale bu góor ba fii wilaayat yi ci kilifteefam nga yena buñ la dénkee xale bu góor nga yore ko mën nga koo takkal soxna boo giseen takkal nga soxna baax na ci moom mën nga koo forcé takal ko soxna te du sañ a bañ ci kaw dénk la ko dénk yooyu ko moom xale bu góor ba wala yu saw ja te du sañ a say loo ak saxirata xale bu jigéen ba illaa an yamurahu ko def wala yu saw ja mel ne ko ataf ci an yu saw ja boo ci tàmbalee nag nga ne wala yu saw ju waaye du sañ a say loo ak saxirata xale bu jigéen ba illaa an yamurahu na rek da koo digal al abu baay ba bi in kaaxihaa ci ak say loom maanaam buñ la dénkee xale bu jigéen moom doo sañ a jekki-jekki maye ko te diisoowul ak moom ba mu ànd ca ne nga woon nag bu fekkee xiig la moom boo ko waxee mu noppi rek ndax bëgg nga diw mu noppi rek mën ngaa sukkandiku ci loolu jàpp ni bëgg na ko waaye ne woon daal dëgg nañ laa dénk xale bu jigéen bi bala nga ko sañ a maye faaw day kàllafe te bu kàllafe faaw nga diisoo ak moom ba mu nangu waaye doo ko sañ a fo xale bu jigéen bañ la dénk daal moom bala nga koo mën a forcer ci da nga séy te doo ko sañ a bañ bàyyi ba moo la koy digal ne la forcé ko mbaamu ràññeel jëkkër ne la may ko diw bu dul loolu rek faaw nga bàyyi ko ba mu nekk mag nga diisoo ak moom ba mu nangu njëkk nga door koo sañ a maye wala sa dawul arxaami déet waroom jege ñaale ndey minal awliyaa yi ñuy bokk ci kilifa ya wala awliyaawu kilifa ya daal minal xasabat ñi ngi bokk ci gañok bàyyi ga ñu bokk ci asabal ña daa wax ne kilifa gi war a maye moom ci yoon day bokk ci yaari wàll yëpp ndey ak baay mbaa mu féete ci wàllu baay ba waaye wàllu yaay kese moom bokku ci kilifa yi mel ne nijaay bu dee ci aadi wolof nijaay am na man-man lool ci sëyu jarbaat bi jigéen bu waaye ci dëgg-dëgg bokku ci kilifa yi doomi ndey koo xam ne rek ngeen bokk ba tey noonu bokku ci kilifa yi wala yaxtubu du labat ahadun kenn xalaa xitbati ax yi ci kaw labatu mbokkam wala yu sowmu te du waxaale xalaa sowmi yi ci kaw waxaale wa dalika te loolee ida rakkana mooy buñ jengantee ci wax wa taqaaraba te jegante ci ay jëf daa wax ne dañuy bañ ñuy wax jamaale maanaam kenn di wax ci soxna bëgg koo takk bu demee ba sori ca nga xam ne moom daal xam nañu amul déggoo kon yow ma ci waxutoon da ngay xool da ngay seetaan ba xam nu ñuy def bu ñu yëyit nag nga door a dugg yow wax say kàddu de sax bu fekkee ne moom kooku daa mat a dem kër rek am ñu fay ñëw te kenn waxagu ci ba sore yow itam sañ ngaa ñëw wax ne ñoom waaye nag bu fekkee am na ku ci wax bañ jegee juboo wax jàgg na foo xam ne benn ñu juboo mbaa ñu may juboo da ngay bàyyi yow kenn doo ci sañ wax ba xam ni ñuy mujjee li tax mu teg ci wala yesu mu xalaas wu mi noonu daa ñëwee ci addis ba noonu maanaam ba tey bu dee wàllu njaay bu kenn di waxaale bu sori ci waxaale wa doo ci sañ a dugg faaw nga bàyyi ba xam day wéy am day deltu gannaaw maye ab sëy nag moom sopp nañ ko ci bisub ajjuma ci gannaaw julli takkusaan ga te itam buñ ko mënee def ci biir weeru korite ba tey geneen sopp lay doon mu ñëw nag ci sëy yi nga xam ne dañ koo aaye tàmbalee ci wala ye joosu du dagan nikaahu shigaari sëyub shigaar waxuwa moom albuduhu moo di pëy maanaam ab sawukaay bil buduhi ci pëy maanaam sëyub shigaar rek mooy mayante ay jabar yaari kilifa yi kenn ku nekk may sa moroom soxna dañ sartante ne bu kii may kii kii du ko may faaw rek lee day am lee am mbaa bu lee ñàkkee lee ñàkk loolu nag mën naa am ñu boole ca kenn ku ne ñu waxal la alali sëy mën naa am itam ñu bañ caa waxal kenn alali sëy mën naa am itam ñu waxal kenn ka alali sëy maanaam can ka ci des ñu bañ koo waxal waaye lu mu ci mën doon daal moom buñ xësee sart ne bu lii amut lee du am moom sëyub si xaar lay doon te day araam bañ ñu nag kee may soxna kee gannaaw ba keewal batiku moom it may ko soxna ci kaw rek ñu am ca déggoo waaye du woon luñ sartante ne lee ak lee mënuñoo ñàkk bokk am mbaa ñu bokk ñàkk déedéet moom daal mën nañoo dem sax ba kee yor doomi kee kee yor doomi kee mbaa yor kee yor jigéenub kee kee yor jigéenub kee waaye lépp rek fekk njëkk rek ko andi waaye du ab sartante buñ ca sartante woon wala nikaaxun du caag yéen nu sëy bi xëyri sadaatin ci dul can maanaam tey duñ duñ nangu ñu may ko soxna ci kaw dañ koy sartal ne ko loo ci joxe dara dara dara dara ñu waxoon gën ngaa néew can moom lu yàgg yàgg na ci am waaye buñ ko dee may ñu sart ne du ci joxe genn can nag mu daal di yàqu wala nikaaxul mutati du caag yéen sëy bi yóbbal waxuwate moom an nikaaxu mooy sëy ila ajalin jëm ci bàpp sëy yóbbal lañ koy araamal ci yoon maanaam takk ab sëy ba noppi sàkkal ku deli boo xam buñ ci àggee sëy bi jeex déedéet moom daal dañoo bëgg rek ñu fas noonu bàyyi bis bu ko yàlla jeexalee nag mu jeex waaye buñ ko wutal ñoom benn àpp wala nikaaxu du caagee nu sëy fi la iddati ci biir idda jigéen bu nekkee ci biir idda day araam sax nga wax ko ne ko dama laa bëgg a takk bu wér a wér jëlal nañ takk ga xam ne kon takk ci biir idda bokk na ci araam yi te daañu leeral ne bu ko takkee ci biir idda far joteeg moom ca idda ja mbaam bàyyi ba idda ji jeex mu joteeg moom te teewul rek may gam may gañ ko mën ci idda ja la sukkandikoo su boobaa da koy araam faaw faaw wala maa du caagéen loo xam ne jarra ñoddee na ilaa xararin jëm ci ak wóoradi fii xaq din ci maye aw sadaaxin wala can ba tey bu fekkee jëmmi maye ga daa amee ak wóoradi mel nañu ne moom day dañ koy may rek soxna waaye nag gannaaw bi dañ koy laaj ba xam bu nangoo mu wéy bu nanguwut ñu bàyyi nga loolu kon ak wóoradi am na ci xamuñu lu ciy mujj kon ak wóoradi ca maye ga bu ci amee rek mu yàqu can nga itam bu amee wóoradi ñi ki ñu koy cane alal ju ñu sàcc xamuñu ba xam daañu jàpp sàcc ba am déet ba alal ju réer xamuñu ba xam dana feeñam déet loolu lépp bu fekkee moom lañ cane du baax bu fekkee moom lañ wax ne mooy can nga du baax wala bi maa du caa génn ci loo xam ne laay joo sulu dagan bay xoo jaayam nga lépp loo xam ne yoon nanguwul ku ko jaay rek du nangu ko def can mel ni sàngara nga xam sañu su koo moom mbaa lu réer nga xam sañu su koo jaay yu mel noonu ba tey sañu su koo def can wamaa loo xam ne fasada yàqu na mi ne nikaax ci sëy ba li sadaax yi ngir canam nga fu sixa kon fi def ko xam ne binaay ci njëkk weet fa in daxale ne weet na biaa ak moom nag magaa kon mu wéy wakaarate nekk fii ci moom sadaaxul misli canu kem nee na bu fekkee ne dañoo seet sëy ba yoon ne baaxut waaye la ko tee baax rek ci wàllu can nga dong la kooku moom moo gën a yomb a defar teew nag bu fekkee joteeguñ dara dara mu lañ koy tebbi waaye bu fekkee xas nañ jotee moom te can nga rek baaxut dañuy bàyyi can googa jigéen gi delloo ko jëkkër ja dañ seet can gu baax gu tolloog lañu cani moroomam góor ga jox ko ko te sëy ba wee kon li wax mooy buñ ne sëy bi baaxut waaye la ko tee baax ci can nga dong la dañuy seet bu fekkee joteeguñ dara dara may kese la ñu dindi ko fekkee jot naa wéet ak moom nag kon ñu bàyyi sëy ba wéy dañ bàyyi can googee nga xam ne yoon nee na baaxut te góor gi jox ko can gu toll ni nga ñu jox ay moroomam moom jigéen ñaar wamaa loo xam ne nag parce que da yàqu na mën a nikaax ci sëy ba li xaq di ngir pas-pasam ba maanaam ngir maye gaa baaxut kooku moom faaw ñu firi ko wa fu sixate firéef ko baxal binaay ci gannaaw wéet fa fii ko nekk na ci moom almusama can gañ tuddoon day wane ne buñ nee jëmmi fas ga ci bopp moo baaxut ni ki dañ koo fas ci lu dul kilifa mooy am kooku faaw ñu dindi ko suñ ko dindee te fekk jotewuñ dara dara ku nekk day dem rek moom bu fekkee bañ koy dindi fekk nañ jote ñoom ñaar nag kon na góor gi joxe can gañ waxante woon da nga waxante woon nañ can fekkee waxante woon fekkee waxante woon genn can nag kon mu joxe canu morom jigéen ji maanaam can gu tollu gañ jox ay moroom wa taxaw te dina tàbbi bi ci sëy boobu alxurmatu araam nga kama taxaw na ka muy tàbbee bindikaaxi ci sëy ba asax yi bay aji wér te nee na buñ nee maye ga baaxut waaye xas nañ jote ñoom ñaar jote ba dana tax lu ab sëy daa araamal maa lu sëy bu baax daa araamal rek sëy bu bon bi ba yoon dindi koy dana ko araamal waaw xam nga lañ ne woon léegi boo xasee takk jigéen ba joteeg moom rek doom bu jigéenam araam na la ab sëtam noonu mu yooyu ba addunay tukki ba tey sëy bii nga xam ne yoon nee na baaxul bañ dindi ko waaye fekk nañ jotee ñoom ñaar loolu ci daal di am mi dool góor ga du mën a takkati doom jigéen jigéen joojee mbaa ab sëtam mbaa dara ba tey xam nga dañ ne woon bi nga xasee may jigéen rek yaayam araam na la ak maamu jigéen ak maamaatam ba ci aadama sëy bii nga xam ne yoon nee na baaxut ba yoon dindi ko du tee mu araamal loola kon lu sëy bu baax bu wér ba di araamal rek moom lu sëy bii di araam moom itam walakin waaye nag laa taxilu du dagane bii ci moom al mutallaqatu kañu fase salaasa ñett maanaam nag bu fekkee jigéen ji ñu takk nii te yoon nit sëy bi baaxut ba tekki ko daa fekkan am góor ko njëkkoon yore ba fase ko ñetti yoon yoon nekkoon xaaral jëkkër jaarat fi nga door ko jëlaat ñu maye ko nag maye bu mel nii nga xam yoon nee na baaxut kon maye bu baaxut bi du tax mën a dellu ci jëkkëram ji njëkk ja du tax mën a waaye nag ku ñu fase woon ñett moom du tax mu dagan ca ci lu mel nii nga xam ne sëy bu fi jaar baaxut du tax mu daal di mën a dellu ci ka ko njëkkoon wax wala yu xasanu deful sañewuloo bi ci moom azawjaani ñaari way dencante ña azawjaani muy naay bi yu xasanu moom ci gën a miin sëy bii nga xam ne yoon nee na baaxut ba ne faaw da koy dindi ndax maye ga ci bopp moo baaxut ñaar ña ko def muy góor gaaw jigéen ja taxu ci kenn sengiwu gannaaw bu ko fa jóge woon njaaloo itam dañ lay caw rek ay yar waaye duñ jàpp ne sengiwu la balay rey ca njaaloo ga ndax sengiwu moom balaa am ñu sëy sëy bu wër jote jote bu wër sëy bi moom yoon nee na baaxut wa xarama araamal na allahu yàlla subhanahu sorelal naa ko lépp leelul ci moom mine nisaay ci jigéen ñi sabaxan juróom-ñaar bil xaraabati ci sababu jege ñaale wa sabax ak juróom ñaar bi robaane ci sababu nàmpaale wa sifri ak goromaale fa xaalte wax moom yàlla xazza tedd na wa jàllate mu màgg ne xorrimat araamaleef na xaleekum ci yéen ummahaatukum seen yaay wa banaatukum ak seen doom yu jigéen wa axawaatukum ak seen mbokk yu jigéen wa xammaatukum ak seeni bàjjan wa xaalaatukum ak seen ndey tax mooy seen ndeyu ndaw wa banaatul axi ak doom yu jigéen yi mbokk mu góor wa banaatu uxti ak doom yu jigéen yi mbokk mu jigéen nee na am na fukki jigéen ak ñeent fukki jigéen ak ñeent ñoo xam ne araam nañ la nga sëy ak ñoom juróom-ñaar ñi ak jegeñaale muy ak mbokk moo tax mën laa sëy ak ñoom am na juróom-ñaar ñoo xam ne nag moom dafa jaxasoo yenn ya nampaalee waral araamal nga yenn ya ak goromaalee ko waral su borom ànd na ko ci ab laaye ci sóorut nisaa yi mu tàmbalee ci araamal nañ ci yéen seeni yaay maanaam kenn ku ne mëntu séeg yaayam ji ko jur biñ ne yaayam nag maam mu jigéenam dugg na ca ak maamaatam mu jigéenam ba ca aadama mu teg ca ak seen doom bu jigéen mooy kenn ku ne doom bu jigéenam araam na ko ci takk biñ ne doom bu jigéenam nag dina yóbbaale sët bu jigéenam ak sëtaatam bu jigéenam mu yooyu rek ba adduna tukkee mu teg ca seen mbokk yu jigéen kenn ku nekk mbokk mu jigéen araam na ko ci takk moo xam ku mbokkal ndey dong la moo xam ku mbokkal baay dong la moo xam ku mbokkal ndey baay la mu teg ca ak seeni bàjjen kenn ku ne sa bàjjen araam na laa takk sa bàjjen mooy ki bokk ak sa baay ndey mbaa baay mbaa ndey ak baay mu teg ca ndey ju ndaw kenn ku nekk ndeyam ju ndaw mooy ka bokk ndeyam ndey wala baay wala ndey ak baay mu teg ca koo xam ne sa mbokk mu góor a ko jur mooy doom bu jigéen sa mbokk mu góor moo xam sa mbokk mu góor ma ndey rek ngeen bokk wala baay rek ngeen bokk mbaa ndey ak baay ku mu ci mën doon rek mën laa takk doom mooy itam mënta takk sa doom ak sab jarbaat maanaam sa mbokk mu jigéen kum jur muy sab jarbaat kon moo xam mbokk mu jigéen mi ngeen bokk rek ndey wala baay wala ndey ak baay lu ci mën doon daal doo mën takk doom lii boo ko wàññee juróom-ñaar lay doon ndax boo leen ndey ak doom bu jigéen ak mbokk mu jigéen ak bàjjen ak ndey ju ndaw ak doom bu jigéen bu mbokk mu góor jur ak doom bu jigéen mbokk mu jigéen jur loolu juróom-ñaar lay doon ba tax mu ne fahaawulaay ñi minal xaraabati ñu ngi tukkee ci jege ñaale maanaam juróom-ñaar ñi mu wàññi moom ak jege ñaari ci mbokk moo waral araamal ga wala waati juróom ñaar ñi nga xam ne min arradaahi tukkee na ci nampaale wa siri ak goromaale qawluhu taala mooy wax yàlla bi mu ne wa ummahaatukum ak seeni yaay allaati ya nga xam ne ardaanakum nampal nañu leen juróom ñaar yi nga xam dafa jaxasoo yenn yi nampaale moo ko waral yenn yi goromaale ko waral ne bokk na ci ba suñu borom ne ak seen yaay yi nga xam ne ñoo leen nàmpal maanaam bu la jigéen nàmpalee ci waxtu wa nga toll ci nàmp rek te fekk juru la itam day mel ne sa yaay nga xam ne kon ñi nga xam ne moom la sa yaay araami rek noonu la lay araami moom itam wa axawaatukum ak seeni mbokk yu jigéen min radaxati tukkee ci nàmpaale bu la jigéen nàmpalee nàmpal keneen kookee nga xam ne jenn jigéen moo leen boole nàmpal day mel ne moo leen jur yéen ñaar ñëpp nga xam ne su fekkee ne day góor itam doo mën a takk doomam bu dee jigéen moom ci boppam doo ko mën a takk du mën a séegi yow doo mën a takk ba tey doomam ndax ndega moom bokk ñu ngi ko leen nàmpal rek day mel ne kon sa mbokkum nàmpaali la fi mu tudd fii nag mooy bu dee jigéen nga xam ne bu dee jigéen du ngeen mën a séy yéen ñaar wa ummahaatu nisaayikum ak ndey seeni soxna boo xasee takk jigéen ñu may la ko rek léegi yaayam araam na la maam mu jigéenam araam na la ba ca aadama doom nag moom bala laa araam moom mi nga takk ko ba ca teg moom moom mi yaay ji dañ ko leeral ci kanam tuuti waaye boo xasee takk jigéen rek moom may kese ga daal nay araamal yaayam ak maam mu jigéenam ba ca aadama waraba ibukum ak seen doomi jiitle seen doomi jiitle allaati ya nga xam ne fii xujoorikum nekk nañ ci seen yiir wala nekk nañ ci seeni penk min nisaayikum bàyyikoo ci seeni soxna allaati ya nga xam ne daxaltum weet ngeen bi xin ak ñoom sa doomi jiitle mooy dangaa takk jigéen fekk mu aman doom nga xam ne yow kooku juróo ko kooka nag bu fekkee ne ki nga takkee yaayam yow moo ci takk ga xas nga weet ak yaayam rek waaw kon doom joojee moom ceexlu nga ca doo ko mën a takkati maanaam buñ la xasee may jigéen ba nga xas wéet ak moom rek doo mën takk doom bu jigéenam doo mën takk ab sëtam ba ca ba addunay tukkee nde sax fa en lam takkoo noonu dem nekku leen daxaltum di weet bi ci naag ñoom falaa junaaxa kon déet bàkkaar xaleekum di war ci yéen ci takk leen maanaam bu fekkee ne laa may jigéen rek waaye mayu kese la jotiwala ak moom dara kon bu la neexee bàyyi ko takk doomam baab sëtam waaye nag moom mi yaay ji ñu may la ko nga xas wéet ak moom nag waaw léegi jeex na doo mën takkati doomam baab sëtam waxalaa ilu abnaikum ak soxna yi seen doom yu góor allazina ña nga xam ne min aslaabikum tukkee nañ ci seeni ndigg sa doom ju góor ji nga xam yaa ko tur dëgg-dëgg dañ ci bëgg a génne koo xam ne da nga koo doomoo rek waaye ci dëgg-dëgg juróo ko daanañ ko def ci ay jamono xewoon na itam ci aaday arab yi léegi nag sa doom ju góor ji nga xam yaa ko jur dëgg dëgg moom kuñ ko kuñ ko xas fasal rek waaw léegi jeexlu nga ci yow mi bàyyam wala ngay maamam wala ngay maamaatam waaw waaye nag koo xam na nga koo doomoo rek waaye ci dëgg dëgg juróo ko moom bu yoree soxna bàyyi ko mën nga koo dem takk wa anta ci maxoo ak ngeen boole benn uxtay diggante yaari mbokk yu jigéen illaa man dara li nga xam ne xad salafa jiitu woon njëkkal islaam ba tey dañuy aaye nga boole ñaari jigéen ñoo xam ne kenn koo ca soppi woon muy góor rek du mën a sëy ka ca des ndax jege guñ jegee ci askan mbaa goromaale mbaa nampaale man nga koo misaale ñaar ñu bokk ndey mbaa baay mbaa ndey ak baay xam nga ñooñu koo ci soppi woon muy góor du mën a sëy ka ca des ñaar ñaar ñu mel noonu nag nga boole leen yor ñu say soxna benn yoon day araam man ngaa yor kee nag mu faatu mbaa ngeen tàggu nga yor ko ci des waaye bokk leen yorandoo nag moo mënta am léemu ne illa ma xat salafa nag mooy lu may lañ daan def njëkk yàlla di ko aaye lañ daan def njëkk yàlla di ko aaye moom kenn du ca topp kenn dara gannaaw bi ko yàlla aaye ba noppi ku ko def nag waaw ko yow la ñuy topp wa qaala taala wala tankihoo bu leen takk maa la nga xam ne nakaxa takkoon na ko abaakum seeni baay minen nisaa yi ci ay jigéen ba tey dañuy aaye takk koo xam ne sa baay takkoon na ko maanaam koo xam ne xas nañ ko fasal sa baay rek xam ne fasu kese lañoo jëlale jote am ci mbaa jote am ci mbaa dara waaye fasu kese gi moo si am rek jeex na yow mi doom ji mbaa nga def sëtam jeexlu nga ci doo mën takkati kooko mukk mukk mukk wa xarama araamal na annabiyu yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi radaahi ci nampaale maa la nga xam ne yaxrumu dana araam minan nasabi ci askan ne yonante bi waxan na ne yaxrumu min arradaahati maa yaxrumu min alwilaadati gépp jege ñaale goo xam ne boo ko jege ñaale nit ci wàllu askan mu araam la rek nga séy ak moom rek ba tey boo ko jege ñaale nit ci wàllu nampaal it noonu ba tey seen diggante daal di araam jege ñaale gu am ci askan nag mën naa am ci nampaale mën nga koo tàmbalee ci ba nga ne kenn ku ne yaayam ji ko jur araam na mu seeg moom kon neel kenn ku ne yaayam ja ko nàmpal araam na mu seeg moom ba nga ne kenn ku ne doom bu jigéenam mbaa sët bu jigéenam araam na koo takk seeg moom ba tey kon neel koo xam ne sa soxna nàmpal na ko daal nay soppi ko sa doom bu jigéen ku soqi koo ca kooko di sa sët bu jigéen ba tey doo mën a seeg ñoom ba nga ne sa mbokk mu jigéen doo mën a seeg moom ba tey kon neel sa mbokk mu jigéenum nàmpaale nga xam ne jenn jigéen da leen a boole nàmpal ba tey doo mën a seeg moom nga topp ko noonu muy wéy ba ci daanu ci wa banaat uxti ja nga waxoon da nga ne woon kenn mënta takk ab jarbaatam nga xam ne mbokk mu jigéenam ci askan moo ko jur ba tey fii neel koo xam ne sa mbokk mu jigéenum nàmpaale moo ko jur ba tey doo mën a séeg moom nga xam ne kon gépp jegeñaale koo xam ne bu amee ci askan araamal rek ba tey bu amee ci nàmpaale itam daal di araamal wanahaate wanahaate mu tere woon am tun kaxa bu dee fi takk almar atu jigéen xalaa xammatihaa ci kaw bàjjanam aw xaalatihaa wala ndeyam ju ndaw bare yonent bi aay woon na takk jigéen te fekk na nga yor bàjjanam mbaa fekk na nga yor ndeyam ju ndaw loolu daa delluwaat ci boole ga ñaar ñoo xam ne soo soppi woon kenn ko muy góor du mën a sekk ca des léegi mu ne ci alxuraan wa an tey ji ma bañ a ux tey ni ba tey moo ñëwaat nga xam ne daal ñaari jigéen ñoo xam ne koo ca mën ci soppi ci ñoom ñaar rek muy góor du mën a sekk ca des ñooy ñaar doo leen mën a yor ñu say soxna nga yorandoo leen man nga yor kee nag mu faatu nga yor ko ca des mbaa nga tàggoo kee takk ko ca des rek fa man naka xa ku takk imraatan jigéen xarumat kon araam na bil xaq di ca fas ka dong duuna antu massa ci lut bu dee fi ko laal araam na xalaa aba yi ci ay baayam wa abna yi ak ay doomam wa xarumat te araamit xalihi ci moom ummahaatuha ay yaayam nee na bu ñu la xasee fasal jigéen rek mooy bu ñu la ko mayee rek muy sa soxna doonte sax jotewu leen dara dara may ga rek fa dox du tee say baay ak say maam jeexul nañ ci kooke ñu la fasal say doom ak say sët ba tey jeexul nañ ci kooke jàppal ne kon daal ñu la xasee may soxna kooke ñu la xas may doonte may kese la it da dale ci sa baay jàpp sa maam jëm ci aadama ñëpp jeexul nañ ca kenn mënu ko caatakatee say doom itam ak say sët ak say sëtaat ba àdduna tukki kenn du ko ci mën a takkati ba tey biñ la xasee may soxna may kese sax dinañu jël dañoo jëlali sax nga jotee moom dara waaye biñ la ko mayee rek jàppal ne yaayam moom jigéen jooy ñu la may araam na la maamam jigéen noonu ak maamaatam ba ci aadama rek wala tax ru du araam nag xale yi ci moom banaatuha ay doomi jigéenam xataa yadduxulam ba te mu wéetee bil ummi ca ndey ja aw yetta laddada wala mu bànneexu biha ci ndey ji bi nikaahin ci ak takk aw milki yamin wala momu nday joru aw bi shubhat wala ci jaawale min nikahin ci tak aw milki wala momel da wax ne bo takke jigen nak mom bala la dooma aram nga wessu tak ga xos jotté ak mom jigen dal mom bo xosé tak ba jotté ak mom ci kaw tak ga ba jamono yi jam amé nga mom ku muy saptara ba tax nga jotté ak mom kon légui yoy jamono doom aram na la ab sutum aram la ba ak ni tukki bu la maye jigen rek mayu kesse jotti wala ak mom dara bu la nexé bayyi gogo may dem tak doom bu jigenam ba nga tak ab sutum waye nak bo xasse bani xu ci jigen ji niñ ko waxe legi mo xam tak ga mo xam momel ga wala dang ko jaawale ak sa soxna ba jotte ak mom wala nga jaawale ko ko mom muy ab jaam bu jigen ba jotte ak mom kon legi jeexlu nga ci doomam ak sutum ba aduna tukki waye nak tak ji tak jigen ji kesse kesse mom du tax nak mu arama doomam ba sutum wala yahrumu du arame bishina ci njaalo halal aji lew manam njaalo lu aram la du dindi la yalla daganaloon melne ku njaalo jigen ay yoon yoon tam du tax ñu wax ko ne ko yaay jigen ji aram na la tak ba mamam bañu na ko doomi jigen jojje nga njaalool aram na la tak dedet du yaq njaalo ga du ko yaqal tak yaay jigen ja ba mam jigen jigen ja du ko yaqal ba tay tak doom jigen jigen ja wala ab setam muy wey rek non waye nak bu fekke dafa njaalo jigen ba am ca doom waaw kay koke bu ci am muy doom mom nga doomi njaalo waye du te mu aram ko waaw koke don doom donte doomi njaalo du te mu aram ko mom mi ko jur wa harama aramalna allah yalla subhanahu sarina ko lepp leenu ci mom wa ta'al kawafiri laal yefari jigen ya bi man ci kep ko xamne laysa min ahli kitabi dir mi bok ci ñoñ téré bi milkin ci sabab momel aw nikahin wala ak tak neena yefar bu jigen bo xamni bokul ci yahud bokul ci nasran manam dal day jaamu xelam rek waye nekul ci diine ju bayiko ci asaman melne muy jaamu sawara ba muy jaamu jant bi ba weer yi ba leneen waaye daal nekkul ci diine yëwoon ba nasaraan yéefar bu jigéen mel noonu yow mi julit araam na ci yow nga joteeg moom dara ci takk mbaa ci moom boo ko moomoon tam doo mën a joteeg moom ci kaw moom nga ko moom soo ko moomoon muy sab jaam itam man lay lëg man lay liggéeyal rek ak liggéeyal la rek waaye du tax nga mën a joteeg moom jote góor a jigéen ويحل دنا دغان وات الكتابيات لال كو جوك تيري بن ملكي ci sabab momel ah manam ku bok ci diine yahud ba nasran di jambu jigen soko momé la nexé ci kaw mom nga ko mom ngay jotté ak mom jotté goor jigen wa yahilu dana dagan wasu harairihinna lal seeni gor bi nikah ci tak wala yahilu dagan nak watu imaihinna lal seeni jebeer bi nikah ci tak daganut li hurri ñel gor wala li xabdin du ciagenu ñel jaam te xale bi rek fofu moy jigen ji bok ci diine yahud ba nasran sañ nga ko tak ci kaw mu nek gor waye nak bu ko sé nek jaam mom do ko mëna tak teew nak bu nekké jaam nga mom ko momel nga dina tax nga sañu joté ak mom ni ngay joté ak soxna waye ni la may nak nga tak ka nek gor ci ñoom dañ la mayewut noonu nga nga takk ka doon jébbiir ci ñoom xool boobu teqale jigéen ji bokk ci diine yëwoon baa nasaraan daal fekkee ci wàllu takk la gor sa ngay sañ a takk waaye jébbiir ba doo ko sañ a takk teewul nag jébbiir ba soo ko moomee mën nga koo def ni soxna joteeg moom joteeg góor a jigéen ni ngay joteeg soxna foofu la am teqale wala tatazawaju du sañ a seek almaratu jigen habdaha jamam bu goor wala habda waladiha du jagenu jamub domam wax ne jamono jam amé jigen mën ta fekk ab jam bu gooram mu def ko jëkkëram man ko gorel ba agal na wal batiku ñu sey waye li fe mi doon jamam rek mom du ko mëna def jëkkër batay jamu doom mi non la jambu góor boo xam ne doomu ji góor ko moom mbaa doom jigéen ko moom moom mi jigéen ji mënta jàppe jaam boobee jëkkëram wala rajulu du jaageenu góor moom du sañ a seeg amata hoo jébéeram wala amata wala di du jaageenu jébéeru doomam maanaam soo amee sa jaam bu jigéen sañ ngaa joteeg moom ci kaw moom gi nga ko moom ni ñuy joteeg soxna waaye nag doo ko mën takk soxna ndax buumu njaam ak buumu sëy dañoo wuute buumu sëy moom bu buumu nawlonte la ak teralante buumu njaam nag moom buumu toroxte la kon jaam bu jigéen bi nga moom mbaa muy jaam bu jigéenu sa doom doo ko mën a takk soxna mën nga ko goreel nag boo noppi wëlbatiku takk ko moom wala hoo ñeel na ko an yata zawaja mu takk amata waalidihi jébbeerub baayam wa amata ummihi ak jébbeerub ndeyam bu sa yaay amee jaam bu jigéen wala sa baay am bu jigéen moom mën ngaa takk jaam bu jigéen boobee wala hoo ñeel na ko an yata zawaja mu takk bintam raati abiyi doom jigéen yi soxna su baayam min rajulin tukkee ci góor xëyrihi gurul baayam maanaam bu fekkee sa soxna si baay dafa àndaale doom nga xam ne sa baay juru ko kon yow mën ngaa walbatiku takk kookee nga xam ne doomi jiit lay sa baay la waaye nag ci sartu ba mu fay ñëw fekk mu bàyyee nàmp waaye bu fekkee ba fa yaayam di ñëw